ñaaxa ca des ak guy gi ngóor ñaax guy gi xëccal ma ko ba mu ñëw arbitre àtte na wax na ñoom ñaar avertissement verbal da di bëre nag li final la loola leen di wax bëre leen que le meilleur gagne mise baa nële ca arbitre ba ku daan dem mu jox la ko bëre leen gaaw Ngor Niakh Gouye Gui Daniel Ngor Niakh Ngor Niakh Gouye Gui ak Gouye Gui loolu final la final lese ba ngoog ñu paree ñu jàll ci ñoom ordinateur arbitre lu muy def joxe avertissement ñoom ñaar mu ne am nga avertissement bëri leen mu des ñaar góor ñaax ak guy gi final lese la xale yi bëgg ñëw sorxo sorxo seen combat bëri nañ ba yegg ci fii dañuy bëgg jël seen temps ndax fi mu ne nii mise bi soreetul bis bi soreetul arbitre na leen. arbitre sifflé waat na diggante Ngor Ñaax ak Guy gi. arbitre sifflé waat na diggante Ñaax ak Guy gi. arbitre na diggante Ngor Ñaax ak Guy gi. arbitre sifflé waat na diggante Ngor Ñaax ak Guy gi. ñu ngi ne tekk di dégluwante fi mu nekk round d'observation la ñuy def ñaax ak guy gi ngoor ñaax ak guy gi ngoor ñaax ak guy gi ñoo nekk noonu final les bu gaawee neex de bu gaawee rekk neex sama dëkkandoo yële may seen seen batterie ngay waaju vite la may seen ci ay baar bëriwul de ngóor ñaax ak guy gi arbitre jox na avertissement guy gi amateur yi d'accord ñu guy gi am na ñaari avertissement ngóor ñaax am na benn avertissement ngóor ñaax am na benn guy gi am na ñaar guy gi am na ñaar ngóor ñaax am na benn avertissement nag boo mooy tuut mooy départage ñaari mbëri final poids léger yee nekk noonu ngóor ñaax ñaax ak guy gi war ñaax ak guy gi bu gaawee neex war ñaax ak guy gi bu gaawee neex ñaax ak guy gi boo zoomé mën ngaa zoomé fii. Ngor Ñaax ak Guy gi Ngor Ñaax ak Guy gi Ngor Ñaax ak Guy gi final Ñaax Guy gi final léger Ngor Ñaax ak guy gi final lese la fi mu nekk nii Ngor am na benn avertissement guy gi am na ñaari avertissement bu arbitre bi joxe waatoon avertissement pour ñoom ñaar lan la Ngor Ñaax daan na ko Ngor Ñaax daan na ko wala dañuy bërewaat Ah, dañuy bërewaat hee dara amul dañuy bërewaat ngoor ñaax ngoor ñaax guy gi dañuy bërewaat dara amul ngoor guy gi dañuy bërewaat dara amul ñaax ak guy gi dañuy bëre waa dara amagul dara waaye avertissement am na seen na guy ñaax a guy gi dara amagul final lese baa ngi noonu góor ñaax a guy gi final lese baa ngoog dara amagul taa bi bu jeexee ngóor ñaax moo gagné ngóor ñaax gagné na par avertissement et c'est terminé